Khadija ma lay fay et puis di nuyu monde entier bu ñuy seetaan di ci jital sama yaay sama xarit ak sunu wa troupe bi ah mais Adama Fall nit la rek ha ben nit bo boobu boobu nek talibé quoi nit nit bu simple aussi. waaw Mbetteel li li d'ailleurs ma koy nuyu de passage suma frère Mansour Mansour sen moom mooy producteur bi ben jour dañi waxtan suma rak la suma xarit la presque maa ko yar ñuy waxtan mun ma ada amna ben projet projet bu nga xamanteni ni sentir la ci quoi pour nga def ko ñu ko yow de sama rak nga sama xarit nga lo bëgg rek amul problème lay yomb bi mo ko waxee yag na quoi faté won na loolu sax ben jour ma tok mu woo ma quoi ni ma projet bi doon wax sorti na quoi d'ailleurs dañuy tourner sax suba man suba mun na man ko amul problème loolu pan betel, dugal ah. pan betel musuma jouer théâtre mais na ci production parce que dum doon liggéey ak euh, ben copain bashir d'ailleurs mom moy monteur ki bi quoi Mbetteel bashir kan Déclic Média kon non def ay keur gi ak koor gi genre ak ay meles yo yep ñoo ko def et tout su ma premier séquence ci théâtre ben ki la woon koor keur gi ak koor gi euh, wajin indi pour mu def séquence bobu nar leen sonal parce que liñ ko bëgg wax loo mënul fexe ba ba wax ko dan ma bas sax bas bas Diallo euh, ma koy nuyu aussi de partage bas moom moo ñëw yee ma quoi aada kaay dimbali nu fii quoi sinon dinañ fi fanaan mooy bi Diop Fall dee takk Abibatu man ma nekk mboq mi jógee caamañ caameen ñëw war ñaan si quoi ñu waroon ñaan si quoi rôle boobu laa fa def à loolu mbetteel laa fi motax ñepp xam ma quoi d'ailleurs té si ba parce que mm, dama doon def commerce d'ailleurs ba série mbettel mm, fekk na ma ngi yor boutique euh amna ay séquences yu bari nga xamanteni bu moy ñëk gisenté ak Amina deuxième fois bi au moins ci ci ci sama boutique lañ ko tourner bëri na suñ ko doon wax fi est-ce dina jeex. non bari na bari na buñ ko doon lim fi du jeex. bayu ci ñaar. ah mais xam nga aduna mom liñ koy waxé ni quoi waroo ñaan yalla yam ci ben ki quoi li nan jinax bu bëggee muccu day bari ay bax non la demee motax lo man loo ma woo tëlewu ma dara ah. loo ma woo mun naa ko liggéey ha ah. ah lolou sant yalla la quoi parce que bu démé ba bu Sénégal tollu fu nga xamanteni xam ku ci né bëgg woné sa bop def ben affaire lolou yokuté la quoi parce que ben instant lolou amul won lolou amul won cinéma yi wul won to boko gisé tay bu la mo koy gissat yalla mo xam mais suñ démé ba mu bëri ku nekk di créer di té épi yépp neex ha yépp neex ha xam nga lolou mun ci ñak parce que ñepp mënu defando yépp baax mënul nekk quoi c'est impossible début bi nak mën nga defar muy ki ngay defar xam parce que lo defar mu baax quoi mais yépp mënul yam té puis mi ngi dépendre ci nit ñi sétane quoi tay mën nga def indi qualité bu baax du convaincre nit ñi nga indi nga gis kuy sétane lo xamante yow mi diko def xam nga ni li ndimbalu yàlla moo ci nekk quoi mais du du du du du du du qualité bu nga xamante ni nit ñi moom lañ war a mun use quoi comprendre nga te ça. non parce que man euh, ci sama gis-gis euh, mbir yàlla moo koy moo moo moo koy dogal si yow rek bu tuddee ni yow Adama Fall ngay tudd. bon lii ak lii lay lay lay ngay doon et ci lii lii la la nit ñi xamee benn way day am comprendre nga. bëri na nag kaa parce que ñu bëri des fois damay dañ naan dama bëgg dugg si lii dama bëgg a dugg si lii xam nga ba fa tamit loolu sant yàlla la ko parce que euh, nga nekk si mbir ñu bëree bëri ñoo xamante ni gënoo leen nit lañ comme yow xam nga bëgg bëgg ci li ngay la loolu sant yàlla la quoi en fait comprendre na sant yàlla la quoi. biir mbetteel parce que euh, loolu euh, bëri na quoi parce que qu'est-ce que mën naa la wax sax chaque jour la quoi parce que ñun nekk ñu benn famille lan quoi troupe mbetteel ñun famille lan boo ñëwoon tey suñu tournage ñun ñëpp ñooy nekkandoo ensemble waxtaan ka foore ñun loolu lañ xam quoi nañu dem moo tax chaque jour que je fais man boog am gisaguma fa lu may metti walla loo xamante ni daf may daf may naqari quoi chaque jour on est ensemble ñooy yëkkateendoo di tegandoo kaf forêt su liggéey jotee ñu liggéey su su kaf jotee ñu kaf quoi. dara parce que man man gars yi nuy kii nii man nekkuma ci loolu de damay tasanteeg nit sax nga bëgg ma kii kii yow kii du aada affaire yi da nga kay man la non danoon nuroo de eh, nuróo ngeen de ma reetaan cool quoi mais amul dara lu lu mu changé ci man ah d'ailleurs euh, à part euh, relation yi ma indil parce que euh, succès bi yóbbu na ma fu ma fu ma moo dugal avion moo tax ma dawal oto yaa ngi dégg et euh, li gën a li mu gën a neex li mu ëppal solo loolu noonu muy que ne nit ñi relation bi mu ma indil bi ma apporteel ay kilifa ay ay ay ay ay nit ñu baax ay ay ay ñu ñëpp xam ñu nga xamante ni man dama doon rêvé sax pour pour pour toog ak ñoom nii après ñoom ñooy ñëw si yow di la bëggee quoi te loolu kii la ci man quoi lu rëy la ci man kon fi mu ma yóbbu. manam maanaam gis nga ne daal voilà non yamul yamul yamul munul yam munul munul bok no marié won na nak quoi mais dama divorcé yagul dara actuellement daal actuellement nii célibataire la mais bu mu tax ngeen ñew de bu mu tax ngeen ñew no bayal bayal rek. ma ma togat ba sama conscience gëna gëna tranquille benn série bu nuy waajal naa la tudd mais ñu ngi koy tourné Saly mm, man mooy chargé de production bi bas bas mooy sama patron sax <laughs> bas Diallo sa copain waaw bas ak Badou Ndiaye ñoo koy def ak ñaari boy yu dëkk Mbour Vito ak ak Diaz quoi waaw ñu ngi si nii jot nañ ci def quelques épisodes mais comme mbetteel dafa commencé woon troisième saison bi moo tax ñu ñu ñu kii ko benn instant ñëw pour mën a àggale lii kiyaat si loolu am nañ aussi tamit yeneen projet yeneen téléfilm yu nga xamante ni su génnee voilà dina def buzz waaw <laughs> waaw ma xanaa di kontaan si si si si kii bi nii quoi interview bi nii parce que c'est pas évident quoi loo xamante ni yàlla la quoi parce que so démé ba ngén bëgg ñëw défal mo interview kon amna lungen lu ngén gis lu war mun tax ngén parce que du ngén tal sen caméra yi tak sen essence ñëw di déplacer wu ci ay ci ay waya waya quoi. barina na di ci euh Masoud Sen moy sun producteur mo dëkk fi mom la la doon présenter légui suma rak la suma xarit la frère am Habib. kaa moom nga nuyu léegi fii kaa ki ngeen dëkkoon ak euh, troubu mbetteel yëpp ah, Ablaye Diouf Leena ñëpp ku lim déggee Diouf ñëpp daal bàyyiwuma kenn.